il faut il faut enquêter aussi parce que am na tax dañ ko gis lu graaw mooy ay ay homme de tenue yu visé nit abattre ko. xam nga on a vu ici des des des des yu yor ay fusil à pompe di tirer si kër ay ay tout ça c' est des man dañ ci war enquête. moo tax man je ne veux pas que crise bi ñu yemale que simplement sur langue politique il faudra tout mettre sur la table tout analyser parce que il ne s'agit pas de protéger l'état de droit il faut restaurer mmh. pense que c' est important bi nañ ci def jàngat yëpp. teg lépp sur la table au lieu mu nekk benn gain les politiques vont commencer à ah, dire non vraiment Macky troisième mandat bi jeex na à de maintenant on va se préparer local non non c'est un tournant pour l'état de droit gis nañu fi temps yii passé ay professeurs plus de cent professeurs yu génnee benn texte sur la situation de l'état de droit au Sénégal donc c'est des universitaires qui sont là et il faut traiter tous les problèmes pas jël benn bu ko ci mhm. et il faut pas que les politiciens je suis un politique mais les politiques ne pas nous enfermer seen combat personnel actuellement c'est le Sénégal qu'il faut sauver c'est le Sénégal qu'il faut mettre sur le rail mhm. sinon c'est cette jeunesse là qui est en attente qui a un besoin on a besoin de restaurer le lien avec ces jeunesses là on a besoin d'un pour que ñu juboo si dëkk bi ñu bëgg defar et ñu avance sur ça et pour ça il faut être transparent il faut être translucide mhm. il faut tout mettre sur la table mhm, ok merci euh, damay fast la parce que temps bi jeex na ah trois questions deux questions euh, gis naa ni que par exemple les dix commandements de de de Ousmane Sonko <laughs> sont irrecevables où de la politique politicienne non c'est c'est situation bi la Sonko décrire mooy li li daam di wax léegi xam nga tey man moo tax bëgguma ñu enfermer Macky en disant que dafa war def lii immédiatement mhm. il a fait un premier discours on est au mois de début mars il va faire un discours le 3 avril c'est un discours important discours d'indépendance mhm. xaar nañ ci moom ay mesures xaar nañ ci moom yu mu mën a jël maa ngi wax léegi ci discours bi euh, dugg na déjà ci problème financement ak promesse d'argent et pour man loolu la solution et ma koy artu président Macky Sall il faut qu'on arrête les financements Abdou Diouf bi mu amee problème ak la jeunesse dafa indi la DIR la dérogation à l'insertion la réinsertion à l'emploi financement la woon Abdoulaye Wade indi fi FNPJ moom mu indi fi DER on a toujours fait des financements et ça n'a jamais marché donc il faut arrêter des finances par contre il avait échoué quelque chose d'important mooy ce nouveau ministère de et de parce que 85 pour cent des jeunes sont dans ce milieu là donc il faut essayer d'innover et que pas mu gënal ñu ay solution clé en main ne ça ne marchera pas donc si loolu lañ koy xaar. ok Khalifa Sall nourrit-il toujours l'envie de reprendre le parti socialiste. li ma yàgg wax man xam nga parti socialiste histoire parti socialiste histoire de fusion la tey Khalifa Sall travaille ak benn plateforme bu ñu wax euh, Taxawu Sénégal il était en train de travailler sur une plateforme euh, Benno Siggil Sénégal dafay toj. ala kulli aline Benno Siggil Sénégal c'est la fin de Benno Siggil Sénégal tey jii comme y a pas de troisième mandat mais y a pas de, Benno Siggil Sénégal qu'est-ce que l'AFP va faire qu'est-ce que le PS va faire c'est des questions qui les concernent maintenant waa PS bu ñu bëggee ñëw fekk ci Khalifa ils seront les bienvenus ñu ànd ak ñoom construire cette nouvelle république là bu nga xamante ne ce sera une nouvelle démocratie un nouveau projet social parce que Khalifa Sall loolu tax ko jóg ok bon question bi ma laay laaj mooy c'est le calendrier électoral. Mmh. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de revoir euh, le calendrier et que les Sénégalais sachent ah quel chemin prendre. loolu dafa am solo mooy li ma lay wax jàngat yëpp parce que xam nga dañu jógee Macky Sall dafa jógee Abdoulaye dafa bàyyi quinquennat euh, septennat Macky Sall ñëw indi quinquennat moom moo indi élection législative fii ñu positionné presque à mi-mandat il faut ñu xam est-ce qu'on veut des élections législatives après la présidentielle parce que élection présidentielle mooy ibbi cycle politique dëkk bi parce que. élection législative majorité président bi la on peut pas aller à des élections yoo ne majorité bi si gën di nekk majorité présidentielle bi donc crise bi lu ñuy wan mooy on a intérêt à s'en sur l'agenda électoral parce que moo waxaat la ko élection mooy respiration démocratie nit ñi bu ñu amee lu leen naqari élection lañ koy wane bu ñu ko mënul wane élection dañuy génn si mbedd bi taal jaxase comme ni ñu ko defee nii donc l'agenda électoral lu important la te li ma gëm mooy actuellement président Macky Sall urgence bi mooy na wax nit ñi yi ça c'est important on ne peut pas avoir des maires qui ont un mandat de huit ans c'est trop ils ont été élus pour cinq ans là ils ont fait huit ans bu ñu xamee élection euh, euh, locale yi kañ la après ñu xool élection législative yi parce que là y aura débat est-ce que daf koy def est-ce que da koy positionner après la présidentielle pour ñu donner plus de d'équilibre à nos institutions c'est un débat qui va se poser mais lépp ci kaw waxtaan et je pense que bokk na ci waxtaan ñu waxtaan Dame gis nañ que l'école sénégalaise a été prise en otage par cette crise xam nga et puis bon yow en tant qu'enseignant xam nga vraiment est-ce que tout ce temps